yàgg maar képp ku suivre Equivox TV ñu ngi gi 3 millions ak jax du mën a ñàkk mbayam yuum la ndeysaan mbaya nga ngay waxtaan bay waxtaan Thank you.

I'm not gonna have to Pati Pati Pati Pati

Simbala we jengo re lama Sangit man, sarjagaye. Adi jagane yilwa. saramudu jam ka angu bela amba bele wasi sangit mang sarjege jana di Abdoulaye Ismaïla Sëriñ a jega Ismaila Salim anjama kay daga ñor na ala sama daga de ba na perabe anjama kay daga ñor na ala ba jama yegal kongo kongo ande nusako epiyengelo tamonage dañuy sol ba rafet ñëw ci làmb ñu xool ki di teg téléphone looy teg téléphone yi Khoudia Sigil maa ngi lay ziar si loon ma wàcc sa masque bi wax ak ah, garaaw bàyyi ko nii garaawul maa ngi si jàmm ana waa Mbour la xam waa fan euh, ah, waa Somone waa Somone tey mu mel ni tey mooy dernière journée avant koor gi fii ci gaal gi ma ne lamb dina leen manqué ah. waaw dinañu manqué trop moo tax ma def le tout pour ñëw seetaan si waaw. waaw sama doomu yaay rek mbayang lu mënuma ko bàyyi ginnaaw bu ñëwee woy rek day soo xol bi day sedd guy. ba su mbayang di woy da ngay ñëw toog si côté lu tax loolu. dama ko bëgg rek te yàlla tax mbayang bu yëngatoo sax day neex bu yëngatoo rek kontaan naa wër de Serigne Touba yàlla jàmmam yàgg rek. conseil bi ñu dem nag ba fii ak kii bi noo koy dundee. di nga woor mbaa. waaw damay woor damay kay mais garaawul un mois yàggul <laughs> waaw. waaw. am na solo. soxna si maa ngi lay. delloo naa la ziar. mbaa am nga jàmm. waaw ah, maa bi nan la. Xadi mu mel ni yéen a ànd di way tey ñu nar a dem tey defe naa ne bu ñu fi jógee tey la tey la dimanche suba la lundi. après dañuy dugg si koor gi mel ni poos daanara am pause boobu nu ngeen koy tudd nu ngeen koy dundee. ah pause bi xanaa jàpp ci julli rek jàpp ci koor bi waaye nag weeru koor la waaw. donc comme comme waaw noonu lañ ko war a jàppee de waaw. maa di woor. ah, ah. Oh. waaw. Mouhamadou Moustapha. ay woor kay. góor a d'accord après a fi. kooku na dina woor yàgg maar. delloo ziar. am ah? yaa ngi si jàmm. maa si jàmm ji bëri sant yàlla bu tey la dernière journée gaal gi après koor gi noonu la koor gi. ah comme niñ koy dundee rek woor ko rek jaamu si yàlla ba ma mot sekk barke. di nga woor. ah man damay woor. mosoo dagg bés. su ma ñàkk a woor. mosoo sàcc di naan. non non non ah loolu maa mag sàcc. Ah. Ah, may jàmm yàlla nag ndax jullit la ah am na solo maire Disa maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo am nga jàmm. am naa jàmm bu bëri. mel ne tey bu bu tey passé moom defe naa ne ak suba incha allah rabi daa mel ni dinañ jël pause ba koor gi jeex. waaw dañuy dugg ci koor gi de. woor ko ci jàmm génn seeg jàmm. waaw. ñaan yàlla fekkee bu déwén ba waaw. waaye yi mel ni kon dina di ngeen xaw a noppaleku tuuti baat yi noppalu. moom dinañ noppaleku presque un mois ñu ngi woy rek amul noppaleku waaw bu kor gi ñëwee moom dinañ dallu bu baax a baax waaw incha allah. koy am na xale bu jigéen boo fa gis mu sol kap. salaamaaleykum gars yi maa leen di ziar de xale yi jigéen yu rafet ngay gis si biir làmb ji soxna si maa ngi lay ziar. delloo ziar am nga jàmm. am naa jàmm foo jógee. man géejawaay. géejawaay mm-hmm. da làmb séréer. waaw dama koy dund waaw. kan mooy sa mbër ci mbër man rëg-rëg. rëg-rëg. Mhm. xanaa wéetal la de. waaw wéetal na ma trop. Ah. Mhm. léegi ci koo jàpp actuellement comme nekk. nan kay rëg-rëg rek laa kese. kese. Mhm. doo sigi. moo nga. waaw. a yàgg ngoom la de. doo sigi nit ñi la noo tudd doomu Babou Ngom looy làqatu yow sa papa def lu rëy ci réew mi sa rakk mën a sa mag mën a tëg macha <laughs> noo tudd. Fatou Ngom Fatou Ngom. Mhm. xam naa bëgg nga ceeb da nga dañoo mën a lekk. man lu may lekk. Ah, nga séeréer. <laughs> waaw tuuti ba dégg ba xam. waaw ah, ma yow ma làkk la. ba fogale séeréer. oui. nuyul waa Gandiaye. <laughs> Fatou bàyyi li ngay def. maa ah ñi ay rak ay doomu baabu ngom lañ yàgg baat xama lu nekk lu nekk maa koy wane maa ngi lay si voilà noo tudd yow man mami ñaay mami mami mami waaw mami ngom baabu mooy sa papa loo bokk ak moom ñoo bokk ndaay baay buy tëgg da ngeen di ñëw toog si ginnaaw. dañuy ñëw toog des fois dañ koy jàppale ndax mu moom daa toll fu sori si ñun taxawuñu fi ñu sama baaba waroon taxawee mu moom moo ñu fa taxawu bëggul ñu ñàkk dara barke Serigne man lu ma am mu moo la sama àdduna lépp mu moo la ñëpp dañuy naan moom moo ma yàqu moo ma réewal lu ma sol suba moom xool mu moom moo ko jënd yàlla rek laa koy bàyyee dama koy ñaan bokk ci milliardaire Serigne Touba yi barke Serigne Babacar. yaa ngi jàng. waaw maa ngi jàng. ban classe. terminal. terminal waaw. fooy jàng. man waaw. waaw a ngi géej waay. waaw maa ngi géej waay waaw. dégg man déedéet. ah déggoo sëriñ. non déggu ma de. <laughs> non déggu ma de. yàgg maar ay doomu baabu ngom lañu. macha allah kontaan ci. waaw baax a baax a baax. waaw jaajëf naa la